dalleen ak jàmm dem dem dikk tukki boo gis am na ñibbisi dem dem dellu si kan moo demoon dem fan dem ngir lan dem ndax lan moom mi ngi wuyoo ci turu Ramatoulaye Diallo waaye suñu waxee tur boobu ñu bari duñ ko xam ñu ko gën a xamee ci DS Major bu nekkoon ab sénégalaise di ab rappeuse bu mag bu siiw lool ci réew mi ginnaaw coow lu rey lu tukkee woon ci maanaam melokaan bi mu amoon maanaam dam doon solo taxoon na ba ñu daal di koy jàpp daanaka sénégalais yëpp jàpp ne dañ ko fee toroxal ba mu ne tot daal di koy daal di koy jàpp teg ko ci ay loxoy yoon loolee tax ba moom rappeuse boobu di Ramatoulaye Diallo ñu gën ko xam ci DS Major doon réew mi dem ba ne mër kenn gisu ko xamul fu mu ne ci fàttali moom xaleb Grand Yoff bi nekkoon na koo xamante ne daf doon jàng nekk ca daara jëlu kawe ga daan def étude yu ñuy woowee commerce international maanaam lu jëm ci wàllu njënd ak ci wàllu réew mi bi ak bitim réew waaye ginnaaw si dafa jël njàng moom mu teg ko ci suuf ndax bëgg ko mu bëggoon wàllu musique maanaam hip hop ba tax mu dugg ci nekk ab rappeuse bu mag bu ñu ràññee lool defoon na fi ay clip yu bare bari waaye saay continuer rek ci kilibam yooyu moom daf ciy wane ne moom xale bu jigéen boobu li muy défendre daal mooy ay swag ak fashion maanaam xale boo xamante ne dafa tegu ci temps am compin danse waaye bu ñu fàttalee moom rappeuse boobu di DS Major tegoon nañ ko fi loxo te li ñu ko doon toppee du lenn lu dul rek melokaanam maanaam colin gi nga xamante ne moom la doon col ñu bi jëri bëri jàpp ne dafa nekk loo xamante ne lu anti la maanaam dëppoowul ak li nga xamante ne moom mooy doxalinu réew mi ginnaaw bu mu génnee ci prestation bu doon def daal di génn waaye la looloo waral ba ñii ñuy woo dooree kuréel gi nga xamante ne nii mooy comité pour la défense des valeur morales au Sénégal maanaam kuréel gi nga xamante ne moom mooy sal saytu wallu dox ak doxalin maanaam collin ak jëfalin ci réew mi ci la ko porté plainte yóbbu ko ca yoon yoon daal di koy teg loxo teg ko ay daan ca noonu ci la moom xale bu jigéen boobu di dees major daal di réer mër ñëpp di ko wër kenn xamul fa mu ne waaye daal ñu sàcc wax leen xale bi macha allah ni mu mel daal doy na waar maanaam daal namul jigéen na looloo waral bu solee yenn colin yi fu mu romb rek toj fa daanaka ñenn ñi sax doon nañ ko woowee la sexy rappeuse maanaam woykat bu jigéen boo xamante ne trois points de suspension ginnaaw coow loolu moom DS Major ci lañ ko gëj a gis fii ci réew mi du musique du dara kenn xamul woon fan la nekk ndekete jamono jooju mu ngi ne woon tekk ci suuf di def ab liggéeyam moo tax ba jamono ji defaat na del bu am doole lool ndax daanaka fu mu toll nii ab album lay waajal album bi am ay morceaux yu bëri yoo xamante ne mi ngi ci ànd ak ay woykat yu nekk ci ci réew mi ak yu nekk ca bitim réew fi mu toll nii nag mi ngi ci ab jaabante gu rëy ci diggante Dakar ak Paris Sénégal ak France gi nga xamante ne nii foofu la maison de disque am nekk waaye li am ba des daal mooy moom DS Major moomu daa mel ni changé na doxalinam waaw wow loolu nag mooy yoon ndax lu mag di foowee ba deeja bu dekkee ba ko baaraamu tuuma yi ñu ko doon joxoon ci ñàkk xorma gu mu amoon ak ñàkk teggin yi ñu wax ne moom la amoon ci colinam rappeur bi DS Major na ko daanaka fu mu nii daal melokaanu colin ba mu yoroon mu mel ni lim ci jot a dund fii ci réew mi ak plainte bañ ko déposé woon ak arrêté bañ ko arrêté woon tax na moom rappeuse bi di DS Major daal di changé doxalinam màgg ci mbir indiwaat beneen doxalin bu yees daanaka lam doon fësal lu ëpp ci ab yaramam kenn mënatu ko teg bët ah dëgg dëgg na ko ku ko xam-xam ne jigéen ju taaru la moo tax boobu sole yenn colin yi fu mu romb toj ko li des kay mooy li ñuy laaj maanaam fans yi ñi nga xamante ne dañ ko toppoon ngir ni mu mel ndax dañuy continuer topp DS Major am dañ yi xam naa ci ab tontoo goo xamante ne nii moom kafu ci fowu ci réew ci soo changé rek mu changé. and chat it up. Used to trip off that